Connect Food agsi na nga nekk sa bërëbu liggéeyukaay sa kër wala foo mënti nekk téléchargel application Connect Food commandé ci restaurant bu la waaw lu ëpp cinquante restaurant yu gën a mag biir Dakar ñoo nekk ci application Connect Food Connect Food daal boo bëggee sa restaurant di gën a fës wala nga bëgg a commandé vingt quatre heures sur vingt quatre sept jours sur sept Connect Food mooy bu baax bi ku bëgg ay leeral téléchargel Connect Food Play Store wala App Store wala nga woote ci 77 821 08 27 wala 33 840 43 29 73. Jollof Chicken ak croustillant teneer commandel rek ñu livre la. Jolof ci Chicken moo leen di may li ci yéenekaay yi député yu yees yi war a sànc tey ci penc ndawi réew mi saf na sàpp ci mboolem yéenekaay yi xëy génn tey bu dee lu ñeel waa Benno Bokk Yaakaar ubbil Direct News Amadou Ba la ñuy ruumandaat ne moom la Macky Sall nar a def président assemblée nationale bi ñuy sànc tey yéenekaay bi ne Mariama Sarr moo war a topp ci moom te Omar Youm moo war a jiite groupe parlementaire bu Benno Bokk Yaakaar li leer ba leer na këng tey ci altine ji ci la député a sànc ci penc ndawi réew mi Direct News ne ndajam tey mi ci assemblée nationale soxna Aïssatou Sow Diawara moo ko nar a jiite li leer ba leer xëccoo gu rëy am ci biir Yewwi Askan Wi ndax ñaari candidat ñooy xëccoo toogub Moustapha Niass bi ci penc ndawi réew ma di Barthélémy Dias ak Ahmed Aïdara ubbil journal bi le mandat yéenekaay ne waa wàllu Sénégal amuñu jiixi jaaxa gi Yewwi Askan Wi ne ndax ñoom leer na leen ne Lamine Thiam képp dongay seenub candidat moom Barthélémy Dias Ousmane Sonko Ahmed Aïdara ñoo ne fàng ci xëtu yéenekaay bi di waa Grand Place yéenekaay bi ne bésub dëgg bi jot na muy Barthélémy Dias wala Ahmed Aïdara ana kana a wuutu Moustapha Niass ci bopp penc ndawi mi waa Grand Place ne bu dee Ahmed Aïdara mu Diaz moom it ci tànk la nekk l'info yéen kaay dikkaat ci sàncug député yu yees yi tey jële ci assemblée nationale journal bi defub gëstu bu yaay ca mbooleem la ca ajoog liy yoot mbooleem kuréel politique yene ci assemblée nationale journal bi ne leen leer ba leer ñàkk déggoogu rëy am na ci ñi fare ci yeewi askan wi Barthélemy Diaz ak Ahmed Aïdara taxaw nañu ca ligne de départ ba ñoom ñaar ñi ngi ne fàng ci xëtu yéen bi di moom Barthélemy Diaz ak Ahmed askan wi le vrai journal ne jot na sëkk waaye ñu am assemblée nationale buy wuyoo càkkuteefu askan wi gàlloo it mboole jafe-jafeem bi ne tey ci ji kuréel politique yi kenn ku ci nekk daañu xam saf ci penc ndawi réew mi Walf Quotidien ne li leer ba leer te nag muy dëgg mooy Yewwi Askan Wi Wallu Sénégal xalal nañu yoon wi njiitu réew mi Macky Sall ci assemblée nationale yemu ca journal bi nee tey jile ci tànneefu njiitu assemblée a a réew mi bi ne fukki milliards la ak juróom-ñaar ci at mu ne enquête yéene ne li gàtti-gàtti ñeenti nit daañu bokk ci ñuy xëccoo toogub Moustapha Niass bi ca penc ndawi réew mi bu dee waa Benno Bokk Yaakaar ñoom kenn munta wax ki war a nekk candidat bi tey ci assemblée nationale Yewwi Askan Wi moom seeni mbir leer na Barthélémy Dias ak Ahmed Aïdara ñoo fay xëccoo toogu gi li aju ci mbiri premier ministre bi ñuy xaar enquête yéene ne njortees na ne yéenekaay bi samp laaj ñaana tey ci altine ji kan moo nar a wutu Moustapha Niass ci bopp penc ndawi réew mi ngan gi njiitu réew mi amal ca Touba ci lu aju ci ak Serigne Mountakha Mbacké ubbi l'indépendant yéenekaay moom Macky Sall xamal na Serigne Mountakha mbooleem la doon ay càkkuteefam jëm ci liggéey yu am solo yi nguur gi war a def ca Touba Mbacké moom njiitu réew mi ne xalif général kulli murid la muy def ca Touba Serigne Touba dong tax mu koy def te kenn mënta tax ba mu wàcc woowee yoon Barthélémy Diaz Mimi Touré Ahmed Aïdara ak Lamine Thiam ne fang jàng ci xët mu njëkku yéenekaay bi di l'indépendant yéenekaay bi ne tey a am ca penc ndawi bi ne lu aju ci wàllu koom la ñu nekk le réveil yéenekaay ne mbir ba doon li ñu doon tey mooy Balla Gaye 2 ak Modou ñaari mbër yi ne fàng ci xët mu njëkku yéenekaay bi di sunu lam bi ne Balla Gaye 2 ak Modou ñaari star lañu waaye ñaari wujju lañu yooy kenn du may sa moroom dara ca centre aéré bu BCEAO ñaari mbëri yàkkante nañu fa xamee ba mu saf-saf moom Balla Gaye de duut baaraam Modou Lo ne ko jël bi ma Eumeu Sène daan sa loxo génnu ca Jollof Chicken ak croustillant teneer commandel rek ñu livré la Jollof Chicken moo leen doon may li ci yéene kaay Connect Food nga nekk sa bërëbu liggéeyukaay sa kër wala foo mënti nekk téléchargel application Connect Food commandé ci restaurant bu waaw lu ëpp cinquante restaurant yu gën a mag biir Dakar ñoo nekk ci application Connect Food Connect Food daal boo bëggee sa restaurant di gën a fës wala nga bëgg a commandé vingt quatre heures sur vingt quatre sept jours sur sept Connect Food mooy bu baax bi ku bëgg ay leeral téléchargel Connect Food Play Store wala App Store wala nga woote ci 77 821 08 27 wala 33 843 29 73.